delloo ziar. bu njëkk combat bu am solo diggante ak diggante nga xamante ne bii mooy Boy Niang noo gisee combat bu en personne. waaw lamb neex la ndax lamb joo xam ne ku nekk ku nekk bëggul daanu moom lamb ju neex lay doon. combat la boo xam ne ñoom ñaar ay bagarreur lañ muy Boy Niang muy Tapha Tine. waaw ñoom ñaar yëpp dañuy moo tax. yooyu bagarreur waaye dañuy jéem a naxante ku nekk yaa ngi nooy naxee sa morom pour daan nekk am avantage ci biir combat bi boo ñaax luy avantage ci biir combat bi. boo ñaax avantage boobu mooy xeex bëre moom Taphatine mu xool xeex bëre moom ku nekkee sa avantage loolu la xeex bëre yow mooy avantage bi. ndax bu ñu bëree bëre bi du am favori à 100 pour cent. non bëre bu ñu bëree dina neex ah dina bëre combat bu neex lay doon. ba jàpp ne moo koy jeexal combat boobu. waaw bëre xeex moo koy jeexal ndax lam moom bëre xeex moo koy jeexal. xeex moo koy jeexal. bëre bëre xeex. bëre xeex sëñ bi góor mu daan ci combat boobu. mën nga mën nga mën nga ñëw jël coup erreur daanu mën nga mën nga song daan jàpp ci gàllaaj ba du mën a yëngatu. non gàllaaj am na wax ne am na xam ne dina toll foo xam ne gàllaaj dootu feeñ de. ñu jógee ci boobu jëm ci beneen combat bu am solo muy diggante ki nga xam te ne bii mooy Siteu ak Papa Sow. waaye ñoo xam ne ñaari yu neex la. waaw lamb yu neex la. comme comme tafaati na kii rek. waaye ñu am na ne day xeex bëre. ñu ngi Siteu jógee de jógee ci defet diggante ma zo diggante ma guy gi su ma juumalee mu jëlaat ki nga xam te mooy Papa Sow tamit am fu mu nekkoon bëgg a ñëwaat. waaye ñoom ñaar ku nekk dafa nekk si defet bi rek ku nekk dafa si pax bi ku nekk bëgg a si pax bi taxawaat nekkaat sa position loolu la kon lamb ju neex lay doon. waaw sax xool na ko ni ko diggante boobu am na gàllankoor am na si bopp lamb yu tëj ba lamb ji taxawaat ah mun na entraîné waat ah. lu koy jeexal. lamb yooyu bëre xeex rek. bëre xeex la ñaari waaw. dina mu gaaw. gaaw ndax bëre xeex moom fu mu fa ne dina gaaw. boo koy noonu. loo koy digal si biir combat boobu. li indi xeex rek. waaw. Siteu. xeex rek. waaw. ay daanaan rek ñoo ko wër. bu jugee ci combinaison bi ko wax dal ko kenn. waaye Tapha Mbeur ak Liss Ndiago. kon daal la ko waxee képp ko amateur ko képp koo xamante ne mbër mi ngi nii taxaw ngi nii taxaw amateurs yi ngi toog di seetaan Tapha Mbeur addina ñi ngi lay déglu amateurs yi ngi lay déglu sa digganteeg Liss Ndiago ci présentation lañ toll Tapha bi chimé waaw auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim naa ko sant yàlla di julli ci Yonent bi di gërëm samay wax ak Liss Ndiago bu bëriwul làmb moo ñu boole topp na ma lu yàgg ni ma dëgg sant rek mooy su bis baa li ma dëggoo ko ma ma duma ko daan ko incha allah. gis dégg nga dafa am wax bu bis baa nga dëggal sa bopp nga taxaw mu duma la daan waaw ginnaaw benn sant yàlla. daan yéen am Mariam Salim. waaw maa ngi nuyu Faye Fall yëpp. yaa ngi nuyu képp waaw di nuyu taxaw moom waaw di nuyu jéy bu baax di nuyu beneen lépp kii bu nee man dama doon dëgg waaw loolu ay waxu façon ci naan la yaa ngi dégg waaw moom bu doon dégg mu yor benn wax nee na maanaam góor ñu yërëm góor waaw yow góor maanaam boo yërëmatu da ngay yërëmatu fu ñu yërëmee man xale ma yërëmee yaa ku mën sa morom duma yéy la wax yéy ku mën sa morom seeku ma moom ay wax li ma seeg ak moom mooy arbitre siffle ma def ko ni nee na ku mën sa morom yëy waaw wóor a maanaam ku am ay ñam pour <laughs> ngi jox rendez-vous amateur yi neex lay doon li ci nekk ci biir ak li nga xamante ne war nañ ko boole ci ay combinaison lu am solo lay doon. waaw waaw wuy loolu ak ay tabac ko may da ngeen a xewee man maa xew. la may bëre man may may Boy Manar damay taxaw tey sama bopp xale la mooy wut ma jéem a dëggal sama bopp am benn 15 si bakkan bi dóor ko ñetti kuy si bakkan bi waaw. mais est-ce que bu taxee si moom. ak loolu la loolu la loolu la demee ndax boo tawee yooru boobu day daan day a xale foo a nax ah. ma ngóor jaay mbaam ko milité si combat bi est-ce que arrangé na ko si diggante mag jox luur ak lese la Narou Sogas toll xam boo xasee doon mag jëm am na coo coono yi jabare doome yooyu ak dépense yi ah sa xel toog kii xale la lekk tëdd lay def amul jar amul doom waaw. avantage Jackson si combat Jackson la ko a mën yóbbu. avantage mooy mu daan ko si bu gaaw mooy avantage am bu yàggee gars yi weddi ko. fan la bu jugee fii mu ne bëri ay moromam. ay moromam comme ñan. ndax morom ay ay ku ñu bëri ay ñoom conseil mun na bëri ñoom. duul moteur waaw. waaw lambam day tijjeeku fi. day tijjeeku carrément. waaw am na solo papa. incha allah jaajëf am na solo kooku suñu papa la Zil Balde xam làmb lool yor mbër dégg ngeen euh, li nga xamante ni jot na ko wax ci combat boobu diggante Naar Sokaas la ak Kidi Jackson arbitre bi jox na Kidi Jackson avertissement am na li nga xamante ni wis na ko Naar te bi wax ay sixième nee na Jackson pare nga kursi bi la moo leen di boole Naar Sokaas pare nga kursi bi la moo leen boole gars yi nañu waaw arbitre na doomu Ngiic ak doomu Tembey ñaari waa Waalo jog san jiital pied gauche dox kawam Naaru Sokaas jiital pied droite wàcc Jokson a ngi koy dox fu mu jëm Naaru Sokaas na droite Jokson dox kawam fu mu jëm moom jog da door wala lu mu koy def Naaru Sokaas ak Jokson ñaari mbër si géew Tima Zéné takk Tima Zéné takk waa buntal ñu fi mesel waaye naaru sokaas ak Jackson ñoo si géew bi naaru cokaas na wala Jackson moo cokaas gos Jackson dooraat la naaru fayu naaru dëggal la boppam diggante Jackson ak naaru sokaas Jackson doomu ñuy doomu Géejawaay war a jàkkaarloo ak naaru sokaas doomu Tombey doomu Pikine lamb ju nar a neex journée Dieye Production drapeau Mame Diarra Fam suñu député diggante Diog Sène ak Narou Sogas dagg nañ leetoo bi Narou demee wet wër taxawaat baissement de bras songa amagul jàpp amagul dóor bu wóor amagul ñaari mbër yi ci géew bi Diog Sène mi ngi dox jëm ci kaw Narou Narou door na ko Diog Sène jàppale ko Diog Sène jàppale lu am Narou Diog lu am Narou door Diog Sène door lu am Narou Diog lu am Tyson ngi forcé Tyson daan na ko la ilaha illallah Tyson daan na ñaari séquence jël bu rëy jël bu amul wérante xale bi fu mu jëm Jackson fan la jëm xale bu xale bi fu mu jëm jëlal ma ko jëlal ma ko jëlal ma ko jag daa décidé jàpp na ko bëreeg moom daan na ko jël bu amul benn wérante eh, doomu wala benn doomu ñuy benn xale bun benn xale tombe benn waaye tey naaru daan nga ki daan dama war daan naaru ki daan xale dafa am avenir si làmb ki daan xale dafa entraîné waaye ki daan war na daan naaru Sogas ñoo ngi lay encouragé te Jackson fii la si arène nationale journée Dia production la woon mag